mbokk yi ñuy teewlu ci Sunugal 24 nuyu nañu leen bu baax a baax di leen wax ngeen dal ak jàmm ci seen actualité yi gën a fës ci bésu tey bi ñu fas ne ko doore nag ak coowal Pape Mamadou Seck mi nga xamante nag teg nañ ko loxo gannaaw rek ba ñu koy tuumaal ni dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy force spéciale bu ñu tegoon loxo fukki fan ak juróom-benn ci weeru fa nga xamante ni moom moom mi nag nekk militant bu Pastef nekk fa nga xamante ni moom mooy ca diwaanu Daaru Muxti foofee la fekk baax nekkoon af photographe laata rek muy nekk agent impôt domaine moom mii la nag mu nga nekkoon ca chambre 3 fa nga xamante ni moom mooy ca kaso bu rëbës mu bokkoon ko nag ak ki nga xamante ni moom mooy Bouna Sarr Pape Ousmane Seck ak ki nga xamante ni moom mooy Assane Dramé ba ci sax Babacar Ndaw gannaaw rek ab feebar bu ko daloon ñu jël ko yóbbu ko fa nga xamante ni moom mooy ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec foofee nag ñu bëri njorte ni nag dafa am ab complot bu am ci mbir mi ca gannaaw ba nag la ñu ko taggee ci biir réseaux sociaux yi ay mbokkam daal di koy jooy jotee la waajur bu góor daal di nag jot ak appel bu tukkee fa nga xamante ni moom mooy ca pavillon spécial bu hôpital euh, Aristide Le Dantec ba nekkee ca diwaanu euh, Ndakaaru foofee nag lañ ko xamali ni ko ki nga xamante ni moom mooy doomam ca hôpital boobee mu nekkoon waajuram bu góor ni ki démb la nga xamante nag ñoom ñooy suñu nattango yu sekkoon waxtaan ak moom nee na a bëgg na lu dal doomam ñu daal di ko koy wax bu fekkee nag dafa génn àdduna mu daal di koy jël euh, suul ko bu mu faj ko daal di koy jébbal yoon mu nekk nag ay kàddu yu daw yaram yoo xamante nag waajuram bu góor daal di koy yëkkati ni ki démb fa nga xamante ne moom mooy ca ITV ñu dem ca nag benn xale bu góor bu amoon lu toll ci fanweeri at lañ fa fekk di koy faat ba noppi bàyyi ko fa nga xamante ne moom mooy ca route nationale numéro 6 ba fa la mbir mi xewe nag ci benn village bu ñuy woowee Saara Ilo bokk ci région bu Kolda sorewul fa nga xamante ne nag moom mooy dëkk ba ba juróomi waxtu ci fajar jotee la mbir mi xew nag ci guddik ajjuma jàpp samedi bi ñu ne nag suba la tabaski ci la mbir mi xewee benn dëkkandoo moo yem nag ci bruit bi ba mu tijjee ab néegam si la nag dégg waa ji di yuuxu nag naan allahu akbar moom nag ci la yem ci mbir mi daw ngir wallu ko ba mu ñëwee nag mënula wax sax li nga xamante ne moom mooy turam ndax ay gaañu gaañu yoo xamante ni nag nekk na ci yaramam boobee noonee la ñu def laaj ko nu mu tudd lenn dong la jot a wax mooy nag Seydina Aliou ñoom nag dañu jàpp ne waa ji noonee la tudd mu nekk nag ab tiis boo xamante ne daan am ca diwaanu Kolda ab néewam fekk nañ ci nag ay jam-jamu paaka yu toll ci ñett fekk nañ ci tamit ay gaañu-gaañu yu am metti jël nañu ko nag yóbbu ko ca l'hôpital bu Kolda gendarmerie ci dina nag ab a ñu wax ci mbirum njuuj njaaj boo xamante ne nag dañ lay am ca nga xamante ne moom mooy mid oil foofee nag lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar la ñu fa luubal ki amal li du kenn ku dul benn doomu Tunisie boo xamante ne nag fa la doon daanee dooleem atum 2017 ba léegi mu nga fa woon moom xamante ni moom mooy hors de virement yi jëm ci salaire yi yi ñu jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeykat ya gannaaw rek ba ñu ko fekkee fa nga xamante ni moom mooy ci aéroport international bu Diass muy jël roplaan gi ngir daw ca am réewam fa la nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy attaque der tegee loxo gannaaw a plainte boo xamante ni nag directrice générale adjoint bi nga xamante ni moom mooy Aram Sow moo ko daal di dugaloon ci lañ ko nag mujj teg loxo nee na nag lépp li nga xamante ni nag ñu ngi ko koy tuumaal moo ko def te nag koppar yooyu dina ko fay nañu ko rek daal di du ci mën a am jamono ji nag daan nañ koy eh, teg ab mandat de eh, dépôt ci ndondam mu nga ca kaso ba eh, xibaar yi ñu daal koy ndar keppe fi nga xamante ne nag moom mooy ca na fi ci weeru août bale ñu génn njabatuk jool gi nga xamante nag faatoon nañ seen i bu ñuy woowee Denver Libération di xëy ay xibaar yu yees jëm ci mile mbir ñi ñu faatoon di Jibril ak ki nga xamante ne moom mooy Adja Jool seen doom boo xamante nag amoon na lu toll ci ñetti at Assane Diol ak ki nga xamante ne moom mooy doomam boobu di Awa Dieye ñoom ñooñee nag gannaaw ba ñu ataale seen kër fa la ñu jaare nag génn àdduna ñeenti loxo ci ne moo nekkee ca comté bu Jefferson fa lañ leen tegee loxo jamono ji nag ñoom ñeenti ñëpp ñu ngi ci kaso bi waaye nag lu yees daan nay am ci mille mbir ndaxte nag bu ñu moyul dinañ génn gannaaw ay réquisitoire yoo xamante ne nag Google jot na ko def ne képp koo xamante ne a defoon nga ay recherche jëm ci waxee sa famille Jool bile di nga laale ci mille mbir ne dañu ay ndaw jotuñu woon a nag def benn recherche dem ci les adresse loolu tax nag seen i avocat di sàkku ñu daal di leen a bàyyi ndaxte nag jàpp nañ ne nag accident mu am te laalewuñ ci mille mbir te nag kenn ci avocat ndaw yooyee dafa jàpp ne nag ni nga xamante ne noonu la ñu leen a dégloo te ñu nekk ay mineur du yoon seen ay waajur waroon nañu taxaw te nag na nga xamante ne noonu lañ doon perquisitionné seen i kër dara jaar ci yoon ñu ngay dul baramutuma ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy police waaye nag lu ci mën a am njabootu jool ñu ngi leen di fàttaliku fii ci diwaanu Sénégal ci ab tiis boo xamante ni nag jot na fee am njaboot googee nag fekk baax fa nga xamante ni moom mooy ci diwaanu Géejawaay juróom ci ñoom jamono ji nag ñu ngi nelaw fi nga xamante ni moom mooy ci sëg yu Yoff jërë ngeen jëf mbokk yi loolee nag moo fi yeesandi woon ci ay xibaar ci chaîne bi nga xamante ni moom mooy Sunugal 24 ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig dajabel incha allah jaa ngeen jëf